ayca générique bi départ na euh, bàkk ba jib na jàngat làmb tàmbali na bàyyi jiile ak per Birahim mbokk yi euh, képp kuy seetaan wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontaan ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne ñu ñëw tey defal leen jàngat làmb comme ni leen koy defee saa su ne ngeen tànn seeni combat may woo père Birahim ñuy ànd di ko décortiquer di xool combat yi ñu neex yi combat yi xale yi champion yi ni ñuy def ba daanu ak ni ñi nga xamante ne noonu la ñuy def ba am ndam su ko defee ñu fas yéene cee waxtaan comme ni ñu ko doon defee père tey ñu ñëw ci ñaari combat mm. ki ci njëkk euh, mooy Moussa Ndoye mm. euh, kenn ki Garga mboose mm. gannaaw loolu dama lay bàyyi nga nuyu mbokk internet yi su ko defee ñu dellu si ci combat bi waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi nuyu mbokk mbokk internet yëpp ñi euh, safoo wasaare lamb di bég di kontaan trop di ñëwaat ci yéen di nuyu di béggee ñëpp nag vraiment Eh, di ñaan yàlla sama kàddu yàlla nañu fekk ci jàmm. amiin yaa rabbi ànd ak ak wérle ak def dara nag. amiin amiin comme ni ko sama sëriñ wax Oustaz Aliou Sall. maa ngi nuyu ñëpp di këram ñëpp di sant ñëpp. bismillah kon nag di kontaan nag daje wax sama doom julli mm-hmm. moom xam naa ne fa mu fa mu génn moom day indi ay galgal rek <laughs> fa mu gën a safe rek mu ne la acca père fii la wax acca waaw <laughs> père tey ñu mu doon combat boo xamante ni ñoom ñaar ku ci nekk dafa am ci lu mu jógee Euh, Garga Mbossé dafa jóge ci défaite mm-hmm. diggante ma ki nga xamante ni mooy mm-hmm. Boy Niang mm-hmm. mu am Moussa Ndoye Moussa nekk ci ay dynamique victoire boo gisee combat ba Lac Rose nga xamante ni mu ngi am na ci lu mu yaakaar ci làmb am na gëm-gëm bu mu am combat bi bi mu amee ñu bari ñu doon analyse làmb favori bi ñu ngi ko joxoon kii di Moussa lan moo waraloon loolu Garga Mbossé moo mënul bëre wala combat bi Moussa Ndoye moo ko ci ëppoon lu baree bari ba ñu ci bari ci làmb gis naa ni daal euh, favori bi Moussa Ndoye lañ ko joxoon. waaw jërëjëf fii xam nga euh, ñoom ñaar. Hmm. Euh, soo xoolee Moussa Ndoye dynamique bi mu jógee xam nga Lac Rose da am na niveau bu mu accord ci làmb. Hmm. xam nga kooku mel noonu tamit euh, amoon mu am ci moom ndam ak ndam mm. na mu amee ndam ci moom mm. loolu yokkute la ci moom mm-hmm. euh, ku mel ni tonnerre tamit mm. dégg nga ak action ba na mu demee ak bu ak jël bu rëy ba mu ko daan ak action bu rafet ba yëpp yooyu yëpp tam boo xam nga loolu mu ndoo mu ci départ tegale ñaari victoire yooyu mm-hmm. ñaari mbir yu tegale leen ci làmb rek ndam la ndam la loolu nag bi mu ko amee lancé na ko lool lancé na ko après estafam gën a yokku lépp xelam gën a baaxaat gën a d'accord mm-hmm. waaw léegi rek bi mu dellusiwaatee fekk kii di Garga Mbossé hmm. moom it jóge ci defet ci Boy Niang hmm. parce que Boy Niang bi ko daan tamit bon gis nga ko ba mu ko daanee ba léegi gis nga ko bu ko ca kaw hmm. parce que ku daan Garga Mbossé boo góorgóorloo yaa ngi ci yow parce que Garga Mbossé mii damay wax ne tey jii dafa am lu ne ci yaram yi su ko yeewoon tey jii tey fu ñu tudd Modou Lo dañ ko fa tudd fu ñu tudd Balla Gaye dañ ko fa tudd parce que man dama ko nekk ma parce que seetaan ko ci mbappat yi si yàgg seetaan bëreem yàgg ko arbitré ci ay ko ma ma xam ne am na bëre mbappat am na bëre arène seetaan naa ko ci claf mu ñoom Saalum ak ak ñoom euh, l'an deux mille ak ay ñëpp nga xam ne daaraan la mhm. waaw kii nag li tax mu dajeeg moom dynamique bi mu jóge la mhm. moo tax ñu boole mais boo xoolee taxawaay yi ñoom ñaar ni ñu tolloo mhm. ni ñu ni ñu taxawee nga xool tànki kii xool tànki kii dégg nga li ma la nga xam ne ah, y a une différence ayca kon ñu ñëw waaw euh, Garga Mbossé mu ngi teg li nga xamante ni mooy garde normal pied gauche Moussa Ndoye teg moom it gàll waaw ñoo bokk taxawaay ñoom ñaar ñu taxaw waaw mm-hmm. bi ñoom ñaar kan la ci gën a jublu ñoom ñëpp seen taxawaay baax na mm-hmm. ku ci nekk garde bi nga jël baax na taxawaay bi baax na écartement bi baax na mm-hmm. taxawaay bi baax na garde bi nga léewtoo it baax na waaw léegi ma gis daal fii aw ma fi dara lu may lu may corriger taxawaay bi waaw ñu dem sëñ Bass ñu ngi leewaatoo ñoom ñaar gis nga lii laa la doon wax nag ci dagg hmm. dagg dagg léewtoo hmm. xam nga bi mu arrêté ba ñëw fa dem ci waaye ñëw dëgg may déedéet dagg léewtoo mooy au lieu nga tàllal sa loxo ba mu jeex hmm. moom dafa dagg bi lem loos bi waaw loolu koy def nag ñaare ci biir bëri mooy pour adversaire bi gën naa jege nag ba nga xam ne soo ko yóotee jot ko soo soo ngay jàpp ko moo tax doo tàllal sa loxo ba mu jeex parce que waa ji day calculer fi nga yam waaye boo dee nii ba loxoy gàttee da ngay def du xam du xam fi nga yem boo dugal waaw boo dugal sa loxo day dal boo bëttee sango day jàpp moo loolu mooy dagg loxo mm-hmm. moo tax mbër ko def pour dagg koy loxo gis nga Moussa Ndoye mi noonu la def mm-hmm. waaw dañuy ñu dem waaw mm-hmm. waaw gis nga ma même kii gis nga euh, Moussa Ndoye dafa dagg loxo yi kii tam dagg loxo yi ñoom ñëpp kenn ku ci nekk yaa ngi observé gis nga ñu ngi ci léewtoo bu baax ñu ngi léewaatoo ñoom ñaar ba tey Garga Mbossé ñu koy xool ci bët Moussa Ndoye mu ngi koy xool ci bët. waaw fii xam nga fii teg na tànk xam nga def na kii hmm. def na un pas avancé. mais un pas avancé bi dafa waroon hmm. ànd ak direct gauche. moom Garga Mbossé waaw déedéet moom ak hmm. que boo nee nii ko ànd ak tuuti pour waa bu déplacé nga mën ko bët. parce que toujours rek daal wax leen ne euh, Moussa Ndoye bi riñaan rek ko ci doon génne. songo bu baax. waaw parce que Ndama ak saa yoo nekkee di yóotante ak moom gauche ak droite gauche moo la sut la hmm. ku yi muy yi ngay mën a jël yow moom doo ko mën a jël moom parce que moo la sut loxo hmm. moo tax da koy jege un pour jege bu tawee nga bëtt ko hmm. comme mën ngaa bëri nga jaxasoo moom jàppante moom gis nga ñu ngay lewaatoo Garga Mbossé ah. cokkaas na cokkaas na moo si bépp Moussa Ndoye fermé ayca ñu dem ba tey riposte rek dafa riposte rek waaw dafa riposté rek. fii nag dafa mel ni per ñoom ñaar ku ci nekk dafa bëgg a jeexal combat bi. waaw parce que jeexal kombaa bi. léewtoo bi du ko jeexal. Mhm. parce que léewtoo bu léewtoo dem taxaw rek di léewtoo di day dem ba soofal seen combat. Mhm. day soofal seen combat moo tax ku ci rek bu ñëwee bëgg nga mu jeex. moo tax Moussa Ndoye sànniwaat moom it fayu. waaw sànni Garga Mbossé benn arrêt de gauche. ay ayca ñu dem. ñu dem. gis nga. xoolal bàcc bi. waaw xoolal gis nga ko bi waaw xam nga saa delluwaatal tuuti ba delluwaatal tuuti hmm. gis nga li ma la wax ci jam xeex hmm. gis nga pour nga dóor waa ji waaw foog nga def tuuti pour nga jam delluwaatal gis nga voilà gis nga bi mu njëkk a lancé nii waaw dafa pour gën a jege waa ji pour droit bi mën a daal hmm. mais su ma nekkee fii jam la nii ne nii du ma la jot est-ce que comprendre nga wax mais xoolal bu bi mu lancé gauche bi la lancé euh, gauche bii waaw dégg nga bi mu ko lancé bi droite bi ñëw. du fa fekk waa ji. parce que fi mu jëmee jaal lancé gauche bi nii dafa fekk waa ji riposté ne ba pare. mais bu fekkoon dafa def un pas avancé ba gën koo jege. Mhm. bu kii bu bu bu def bu dawul carrément. bu riposté ne gos bi day dal. waaw ah, kii droite bi day dal. bu sëggee da koy jàpp. Mhm. mais dafa jëm bi rek appel bële. wala tànk bi ci ginnaaw taxawul. Mhm. gis nga ko. Mhm. moo tax may la un pas avancé bi daf ci am solo boo dee nii maa ngi ko doon booy bi léegi. Mhm. soo dee nii boo avancé soo dóori tànk bi ci ginnaaw warul jóg. rotation ren de war def nga dellu si waat mais nga tànk bi tegootul. fii taxaw jodd mais Moussa Ndoye dóor na ba ba ko. ba dem ba ba bi ci ginnaaw jóg nii gis nga ko. léegi nag kii dafa dafa dafa sigg rek arrière mais dafa sigg rek moytu. mais riposte bi tànk bi ci ginnaaw loolu la def ni déplacement dem. génn ci loolu moo doon yoon. waaw loolu moo doon yoon ci xeexu. ay moo tax xeexu làmb daal dañ koy jàng. Hmm. waaw ñu dem. parce que fii tamit daal la wax leen. Hmm. Moussa Ndoye mu ngi provoqué histoire mu ngi provoqué histoire pour xeex mais pour nu songee kii lay wut. Hmm. kon parce que bu léegi léegi bi suñu jamantee jamante songul bëri bi du jeex. Ah, da ko doon woo ci xeex pour bëgg a. bëri ah, mu ngoog jeex mu ngoog ñëw nga. ay ca ñu dem waaw. ñu ngi waatoo ba tey waaw gis nga jam na jamaat na lam mhm. yëpp cokkaas bi yëpp pour xeex bi mhm. parce que fii itam daal la wax lenn mhm. Moussa Ndoye combat bi ñu passé da ko gañee ci xeex waaw moom la waaw waaw moom la da ko gañee ci xeex moom ba kii da kële da ko gañee ci xeex léegi nag comme gis nga fi ne xam nga lu muy def bu ñëwatee léegi moom xeex bi lay defe ne moom defe ne c'est un bagarreur. waaw ah, moom lay gën a favoriser. looy favoriser voilà ah. très bien c'est day day day fàtte bëre bi. Mm-hmm. ne war ne man mën na maa bëre ba léegi dootul favoriser bëre parce que ñëpp nañu dafa mën a xeex. waaw ah. te loolu du yoon. Mm-hmm. parce que combat dafa am combat yoo xam ne bii combat xeex la ciy génne mais bii bëre la ciy génne. combat moo Garga Mbossé lan moo ko ci doon génne. xeex bëre rek parce que bu Garga Mbossé daf ko sut. Mm-hmm. songoo bëre moom rek a coow comme moom mën naa bëre na gëm bëreem rek ba fexe ba riyaan riyaan rek moo jël fexe ba ëgg si tànk yi rek. ayca ñu dem ñu ngay lewaatoo ba tey waaw Garga Mbossé mu ngi taxaw rek waaw taxaw di ko xaar rek mm-hmm. di ko xaar parce que Garga Mbossé tamit xaar bi dafa bari ci làmb ji fii parce que làmb ji fii may ma ñëw parce que làmb ji fii dafa waroon jël initiative am ci combat bi moom Garga Mbossé waaw mais may temps bi mu may temps kii ci bëri bi dafa yàgg mm-hmm. te loolu day téye làmbam mm-hmm. dafa waroon na ñëw rek war Moussa Ndoye ne ko amul lii amul li may def hmm. hmm. na ci mais avant muy daal dafa ci bi dafa yàgg xaar bi dafa yàgg. est-ce que du dafa waaw waaw ah da koy respecté parce que la yi mu jóge la. Hmm. ak ñu ne ci ginnaawam. di ko naap di ko naan ko oh, moytu lii Moussa Ndoye lii nangam nangam. mais yooyu yëpp c'est bien beau mais li gën a am solo booy jili. mbër bi gëm boppam. nit ñi mën laa naaba naaba naaba sa bopp ni nii. waaye boo ñëwee bul weddi waaye xoolal boo ñëwee defal li nga gëm rek. Mhm. waaw kii maa ko man dama koy jàpp daal jeex na. ci signature bi dernier daje bi ñu daje Garga def na ko année balance moo ñu boole man ak yow te bu arbitre sifflé di nga ko xam mais ci biir bëre bi ba tey ñu ngi gis cër boo xamante ne Garga Mbossé jox na ko kii di Moussa mais loolu wax na ko waaye jëfewu ko mhm. xam nga loolu waxi waxi bo mbooloo la mhm. waxi waxi signature contrat la waaye loolu tax mu yàgg naa toog ne man damay xeex te bu soobee yàlla te bu xeet naa wax a wax te la ñuy wax nuñ koo jëfe ci làmb ji loolu yàgg na ci mbër mhm. moo tax loolu nga waxoon noonu waxi contrat la woon waaye mhm. ay ca kon ñu dem wane ko fii mhm. hmm? ñu ba tey hmm? waaw ñu ba tey ba tey gar nga koy xaar mooy mu xaar te kii sax lu bon bon moom moo ci def sax ñaari favori ñaari jam yoo xam ne jëma jëma hmm. mais yëpp da ko yóotu mais bu defoon un daal avancé laal gauche droite am ak bu si bu déplacé mu doo bëtt ko ba song bu baax la doon song. Garga moom dafa mel ni à tout moment per day taxaw rek xaar musaandooy Ndoye ndax gëm na ni yàgg-yàgg day ñëw. ah loolu waaw ba tey loolu it. boo xoolee tànk yi ni mu taxawee dafa mel ni parewul pour dem. Moussa Ndoye nag boo gisee ni mu taxawee dafa mel ni daa nekk ci taxawaay pour dem attaquer Garga. parce que Moussa Ndoye mii. Hmm. dem rek moo koy ci bëri bi hmm. parce que ndaama ak njool nda jaw seen daal bi di léew toog di joxonteeg moom wóorul. Hmm. li gën a am solo mooy jege ko dem jëli ko. ngeen bëri mm. wala yóotu ko mu dee dóor mu dee dóor nga fel daw yëg ko loolu mm. mooy bëri bi loolu rek loolu rek moo ci bëri bi moo tax gis nga mosuma fii mooy li ma la waxoon ci commencement bi rek ne la garga ba tey yaram bi di ci ne yeewagu ko mm-hmm. waaw fii nag daa mel ni mu ngi koy jéem a gëdd moom Garga Mbossé waaw bëgg na Moussa Ndoye ñëw parce que mm. fi mu toll nii daa mel ni daa toll ci moment bu mu koy aspiré gis nga arbitre bi woon na leen waaw parce que kon daanaka euh, li mu yaakaaroon ci ñoom ñaar gis nga Moussa Ndoye jël na avertissement kër garga mboose jël na avertissement waay waay mooy li nga wax léegi père xaar bi moo yàgg xaar bi moo yàgg dañu yoon mm-hmm. day yoon parce que mbër bu am nga signature pour daan ko boo ñëwee rek wane li nga mën mm-hmm. waaw am na mbër yoo xam ne ñu ma leen tudd ci télé bi fii parce que dañ ñaan père bi lay defaral mm-hmm. mais gis nga duñu xaar lii ah, loolu moom euh, sëñ Bass teel ma foofu loolu moom xëy na <laughs> boo boo ko wax sax dinaa ko wax parce que amateur làmb yi xam nañ ni mm-hmm. euh, lu waay gàtt gis-gis wala gàtt dégg-dégg xam na ñii bu ñu bëree seen combat moom mm-hmm. vite fait bien fait lay doon ah. ku ci mel ni Balla gay da koy def mm-hmm. moom moom euh, ak lu munti xew ci làmb moom bu arbitre bi moom foo munti nekk dina la fekk dina bëre yow daan dem ñibbi Euh, ku ci mel ni Eumeu Sène daf koy def mm-hmm. Eumeu Sène moom lu mën a xew combat du yàgg bu arbitre bi sifflé dina dox sa kaw dina bëri mm-hmm. euh, Bombardier tamit combat am noonu la mm-hmm. moom it du ñu gis ci kombaam yoo xamante ne dina bari bari loolu père ñu ñëwaat ba tey ay ñu dem sëñ Bass ñu ngi leewaatoo gargaa ngi sukk nag fi mu toll nii daa mel ni mu toog ci tànk yi quoi uh-huh. ah, xam ba tey xam nga mu ngi gis nga cokkaas bi l'enseignement la delluwaatal tuuti euh, bas euh, laajal saa bi xoolal hmm. tànk bi gis bi mu lancé xoolal tànk bi lanceel ah, na ñëw na dem na ñëw tëb na dóor yi waaw ah. mais gis bi mu dóor yi gis nga tànk bi ci moom dafa jóg waaw ah. moo ñëwul de waaw dellu dellu tuuti dellu tuuti fi muy dóoree da nga gis bi mu tëbee di dóori yi waaw ay ca fii lay sànni sànni na waaw tànk bi tànk bi jóg jógul rek bu ñu laasee gauche am bii. waaw tànk bi laasee tànk bi ci gis na. trois ay ca delloo tuuti sëñ Bass dafa moo tax may leen un dóor toujours day ànd ak un pas avancé. voilà dóor toujours day ànd ak un pas avancé. sa taxaw hmm. hmm. mais buy sànni tànk bi ci ginnaaw warul jóg. loolu tamit dafa lu ci mbër. Hmm. waaw sa tànk bi ci dafa taxaw parce que nit ñaari tànk la. bu benn bi taxawee benn bi taxawul rek amatoo doole. buñ la contrer nga toog buñ la pesee sax nga toog waaw ñu dem. ayca ñu dem. gis nga Moussa Ndoye daw Moussa Ndoye daw daw jëri ko. mais song bi song bi ñorul. Hmm. song bi du song mu ñor. gis nga voilà dafa yooru. Moussa Ndoye waaw dafa yooru. gisoo bi moo tax it waa gis ko góolu ko. parce que song bu waa ji ñëw normalement la war a ubbi fa nga war a jëme góosu droite waa ji sigi ba nga koy bëtt. Hmm. waru ko yëg. Hmm. parce que fi nga koy àgg pour mën koo daal waru ko yëg waaye bu ko yëgee da lay góolu da lay teeru. moo tax mu teeru ko fi song mi dama dem rek pour jeexali bëre bi mhm. mais ñorul moo tax su waa ji daal di koy téye mhm. gis nga fii ne nii moom su doon man fii mhm. dem naa jëli waa ji waa ji teeru na ma damay génnaat reculer waat ah damay génn damay rasu génn fii ne nii day génn rek wala mu ne dégg wala mu ne dégg ne tekk ba xam Garga Mbossé lan lay def waaye bu téye fii song bi ñorul benn ñaareel ba waa ji dugalu ko àggul Mhm. intercepté na ko ci diggante bi léegi lan la waroon def ne tek xam ne man kat ku ma doon yóotu jàpp ma wala li ma soxla aw ma ko dama daa tekk génnaat dama tekk mhm. ba mën a génnaat mhm. loolu moo doon yoon ci bëri bi fii parce que song mi ñëw dafa kawe song mi fii war a ñëw ci série yi fii waaye gis nga ca kaw la ko ca dënn bi la ko jëli waa ji góolu ko bi mu ko góoloo téye ko dafa ne tekk fii tam comme xam naa ne la ma soxla amaguma ko dama naa tekk parce que mbër bu songee jàpp fi mu songee jàpp wala jàpp jekkul dangay fexe ba ba doo daanoo boo songee jàppoo wala nga jàpp wala nga jàpp fi nga jàpp dëgërul assuré sa taxawaay. ay ca ñu dem kon gis nga. te ba léegi jekku. gis nga ba léegi gis nga ko xam nga xoola ñaar tànk yi ni mu làngee. gis nga ko ba léegi tey position bi day taxaw ni rek mais fii ba tey mënu fi am dara gis nga. xool xoolam boot bi gis nga voilà très bien gis nga fii bi muy boot. yow yaa ngi boot nit ki sa hanche ci boppam fii da ngay fléchir jambe yi ba teg ko fii door a ñëw. Mhm. waaw maanaam moom but bool bi dafa xol dafa kawe moom waa jëng te mu dugg ba combat te xol du taat bi génne mhm. taat dafa war a nekk ci biir dafa waroon jege ci biir ci biir maanaam dafa war a ñëw ci naq Garga Mbossé bi voilà yaa ngi door a ñëw foofu la dafa war a ñëw ci naq foofu mhm. daal di mu dem foofu moo doon yoon mais toog mboot bi xol mboot bi duggul ba pare mu def action dem fii ne bu gor moom buy rëcc buy rëcc ko rek muy dem ay ca ñu dem ñu dem gis nga day rëcc ko mu këpp ko gis nga li ma la wax nii mboot bi parce que triceps bi. Hmm. laaj bu doon tànk tàpp dama lay wan da ngay wax. bu doon taf tey dama gis nga da ngay bu waa ji duggee. Hmm. dugg téye ba mu dëgër. maanaam wala gis nga fii boo dugg xam nga dugg na fii. fii ngay dugg fii fii xoolal. Ah. comme ça fépp gis nga nii. Hmm. xoolal xool ni ma toogee. gis nga bu lay kër gis nga tànk bi. fii laa koy indi. xoolal fi may ñëw. gis nga fii ne fi ma lay léegi su ma neexee. sama tànk fii laa koy indi. rek gis nga bu may rek ñëw deuxième bi day dem. waaw gis nga boo tourné rek nga yow gis nga fekk fii ngay tiire rek da ngay tiire loxo bi ni teg nii daal di xool fële hmm. yow yaay gestu xool fi may gestu moo lay maa ngi jóg fii déglu ma sigil xool fi may gestu gis nga fële may xool moo lay gis nga hop bu may tiire ngay dem loolu moo doon mboot bi waaye mënumaa nekk fii sa wet nii ba pare naa dama lay mboot léegi da ngay yow da nga ma yocc ne këpp waaw gis nga damay man maay dem moo tax daa jiit waaw day day dem moo tax gis nga yow da ngay téye fii ba mu dëgër hmm. loxo bi fu mu téye ni nga téye ci triceps bi gis nga fii la tànk bi noonu nga indi ko fii hmm. bii dooru ñëw nag ah. gis nga rein mook rein bi xoolal hmm. hëpp gis nga hëpp gis nga tiire hëpp gis nga gis nga bu la defee nga tiir bi tiire mu ñëw loolu moo loolu mooy action bi noonu la ñuy bootee gis ngeen de. loolu moo doon boole mais gis nga fi mu ne nii fi mu ne nii waa ji dañoo ci kopp moo tax gis nga. garga dafa rocc rek këpp ko mu dem ay ca ñu dem fu mu jeexee waaw ah, mu daan Moussa Ndoye jël bu ah, amul jël bu amul benn werante waaw mm-hmm. ah. moom garga mboose waaw mais man su ma doon garga sax hmm. boo daanee sax du ma ci bàkk noonu hmm, du zible ci combat bi mm-hmm. du zible ci combat kanam rek parce que daan Moussa Ndoye mbër la hmm. daan nga champion parce que bu daan ñoom garga ñoom doneer ak xale ak ñu fi daan ñëpp tamit daan mbër Hmm. waaye dana gën defar carrière am ñu bari ci Garga Mbossé damay seetlu bu bëree làmb d'habitude hmm. comme tey ku mel ni Moussa Ndoye hmm. combat bi ñu bari dañ doon wax naan euh, Garga Mbossé niveau am ci làmb du fii waaw ah. malgré nag Moussa Ndoye champion la ndaanaanu làmb la mais avantage bi yëpp ci musaandooy la ëppee woon parce que ah. Moussa Ndoye daan Garga Mbossé euh, dafay am fu mu ko yóbbu ah. mais Garga Mbossé daan Moussa dafa mel ni daanaka euh, fa mu taxawoon la taxaw ba tey kon ñu ñëwaat per ni ñëwal ah. tuuti ñu jàkkaarloo. Ah, xanaa xanaa kay xanaa hmm. kay kon kon euh, euh, dëggal nga sax wax. waaw moo tax xam nga sànq nee la man bu doon caméra bi ma ma waxoon ne sànq nee la bu doon man bu ma daanee du ma jubilé. wax naa la loolu kay. Ah, kon kay yéeg nga sama laaj. <laughs> li ma wax kay moom nga di jubilé moom laa indi moom nga di waat ma ne bu ma daan naan bu ma daan du ma jubilé mm-hmm. déedéet. parce que moom tey ji dama ne bu dafa yeewul li nekk ci yaram yi mhm. mais wextaan we xadar jéeg yooyu bu ko diwoon làmb weesul na ko fii mhm. parce que mbër mu garbalu ci làmb jekk na ci làmb benn mhm. ñaareel ba am na caaci làmb quoi am na caaci mbër quoi ci garago beeg fecc beeg animation beeg yëpp loolu am na ko kon mbër gi li ci des liggéey rek la jël initiative arbitre ciblé nga ciblé dox sa initiative arbitre ne prime mu def bëre xale waaw jam gauche jam droite nga daw daw mu paqueté bëri da jox xam soo ko joxee àqam rek action action yëpp day xoromo mhm. yëpp ay neex yëpp ay xoromo ah, action boo ko dee xoromo rek maanaam doo ko xaar di ko yoon di ko yoon déedéet da ngay tam jëli ko mais Garga sa bëri na sa mbapat nii la daan bëre waaw waaw bëri na fa ak waaw mais xam nga bëri aare nag mbapat du benn nag mhm. bi waaw ah, moom Brice naa ne foofu bëri ñu bëri mhm. bëri na fa ak Brice yi man mi Brice arbitre fa bëri na fa ak maa ne arbitre waaw mais moo tax ma ne la yi ci bëri lii xoromal sa bëri yaa koy def xorom bi nekkul ci fecc beeg animation beeg band beeg mën a fecceeg mën a pàkkar ceeg déedéet loolu benn ar la nga yor mu tuus mu neex fecc mu neex hmm. waaye bu loolu passé da koy teg de côté nag xam nga leen teg ko lan ngay indi wex xatt nag indi làmb nag jam gauche ñëw door xar mat rek ar bi sible nga mépp nga xaar waa ji mu ñëw bu ñëwee nga ñëw bu ñëwul nga ñëw hmm. boo ko see jàpp bëre bi jeex loolu mooy xam-xam loolu mooy may nit mbër hmm. sango saafara wut bay rek yooyu yëpp am bay bayre bi yaay bëri yaay bëri loola may bayre nangu hmm, bëri yaay may hmm, hmm. yaay bëri la may bayre laayi laay diw jël bi mu daan ay yaay jël bi yàlla nga tegal ñaar ñett ñeent rek li ñu ne ah waaye kii fi mu nekkoon loolu yaa koy liggéey yaa koy liggéey te loolu lépp nag jibar yu bari yi bu mu leen tax a yaakaar ne moo leen di may succès bëri da nga koy mën condition da nga koy am ñimee da nga koy def da ngay mbër day ñimee ki mu adversaire am condition mën a bëri waaw am naa benn feem wala ñaari feem gis naa ñeneen ñu am feem yu garaaw ma jàng ko loolu la demee boo ko jàngee rek mu ñëw booy. maa la ko wax. am na ci bari loo xam ne dañ da koo xamul mais bu ñu gisee ku ko xam ku ko rek mu xam ko. Mhm. loolu rek la. Mhm. caméra yi ñuy filmé nii yëpp. boo ma joxoon xaw ma dara waaye fii boo ci defoon un mois ñu naan ma nii ngay taxawee nii ngay cadré nii ngay subee nii ngay def nangam. Mhm. bu léegee léegi mën demal sàmm. maa ko wax am na dëgg la yàlla. yaay yaa ngi taxaw fii hmm. suba mën ngaa yor caméra waaye danga fekk nga jàng bu fekkee fii nga yemale sa xam-xam hmm. fii rek nga yem wax père bi laay waaye bu fekkee ne war na maa xam lii war na maa xam lii war na maa xam lii bu subaa nga xam lépp wallaahi loolu laa gis lu leer naa ñu la man ah, kay téere laa la wax booy mbokk yi loolu lañ leen indi woon tey ci jàngat lamb ji bàyyi Djily ak Père Birahim euh, ñu indi woon combat boo xamante ni combat bu neex la combat bu amoon bëre la combat boo xamante ni Euh, ñu ci bari mën nañ ci jàng mu doxoon ci diggante Garga Mbossé bu Dóodóoraat ak Moussa Ndoye bu Yaraax mbokk yi ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax fépp fu waay mën a nekk di seetaan wasaare làmb gis nañ yéene gis nañ bëgg-bëgg ñu leen di jaajëfal Père maa lay jaajëfal bu baax a baax. waaw jërëjëf maa ngi kontaan tam di nuyu sama collègue yi Mbodj. Hmm. maa ngi koy ziar di ko nuyu bu baax. Mbodj Sonatel waaw Mbodj Sonatel Mbodj Dié ak. sama xarit la Mbodj sama xarit waaye xam naa di ngeen xamante ni. incha allah Biram Ndaw Ndoye ak soxnaam Seydou Ndoye maa ngi koy nuyu. ba nekk New Jersey di ko nuyu di nuyu waa wasa waa euh, euh, kii nu mu suñu association bi les sages. waaw association Moussa Gueye mooy trésorier mm. mooy président bi man maay trésorier bi di nuyu mm. Pape Konaté. Mm. di ko jox nuyoo bi nag mu joxal ma ko ñëpp ñoom Serigne Kan ak gars yi ñëpp ñu nekk ci groupe bi daal maa ngi leen nuyu di leen ñaanal jàmm ay anciens lutteurs rek a fa nekk nag dëgg groupe bu xombal la xam naa di ngeen di mës a jël sax waxtaan ak ñoom def ak ñoom émission incha allah